même Diarra Seck mi ngi woon ci Kini bi. rendul sëñ bi tuuti sëñ bi may ñu tuuti. kii taxaw nii ci bi de de Darou. mais oto bu renversé wu dañu il paraît a ba yaakaar di dañu yóbbu woon néew bay wàññeeku fi mu ne dañoo yóbbu néew ñu ngi dëkk ngumba ngéwul yóbbu néew bay wàññeeku fi mu ne koor yi ñu ngi tëdd nii man li ma jaaxal mooy 14 kilomètres de Daaru la mais ñi ngi woonaa commandant bu Louga euh, wax ak moom mu jox ma beneen numéro ma woo leen ñu ni ñoom euh, waa Daaru ñu war a déplacé wu te moom woon a waa Daaru ba noppi man dama xamul 14 kilomètres ñu woo leen Euh, lenteur boobu jaaxal na ma lool donc li ma ta réglé bari na lool démb on parle de plus de quarante morts tey ñu ngi waxaat ay nit yoo xamee ne ay blessé oto bi renversé wu mënoo gis sapeur ñu ñëw lii c'est catastrophe dëgg la muy réew moo xamee ni vraiment yémen donc dafa agsi te xel yim doon daw xaw na ëpp

dafa dafa melul ni comme bi ñuy defar tey ji mu jëm euh, Louga jëm Daara comme xam ni man nga sax euh, bañ am yenn problème yi voilà euh, sëñ Fallou Gallas Lo depuis diwaanu fii soog bi xamee tey Taysir xam naa ñu leen revenir pour beaucoup plus d'informations.